mun na soppi lu bëri ci dundu nit ñu nekk ci monde rural bi ak même ci taax yi ndax xam nañu Sénégalais yu bëri yu nekk ci taax yi tamit dañuy togge ba tey këriñ ak matt te këriñ beeg matt bi benn at bu ne bu fekkee ni diwaanu Thiès rek la ñu xool région de Thiès rek la xool fukk ak ñaari million wu hectares garab luñ lay bu ko xaymaa ci waa Thiès rek lu ñuy consommer ci matt ak këriñ pour mun a togg. fukk ak ñaari million la bu fekkee ne Sénégal yëpp ñeenti téeméeri million hectare garab te xam nañ garab yooyu ak àll googu ay téeméeri at lañu def ba yàlla saxal ko fi mu màgg ñu koy jëriñoo rabu àll yi di ci jëriñoo muy jëriñ suuf si tamit di te désertification bi di tax et cetera et cetera bi ñun ñëpp xam nañu njëriñu garab donc bu ñu indee programme boo xam ne day tax jigéen ji bu fekkee ni defar na bànn gi ñuy wax biodigesteur ci këram am ay quelques nag bu ko jëriñoo ni mu ko war a jëriñoo dina ci am gaz bu mu mun a toggee te du loo xam ne lépp la dangeen ko gis mu am ci ay résultats am ñu ci am ay résultats yu am solo ñu jox leen prime kii prix tey dina ci am donc gaz bu mu toggee dina ci am gaz bu mu taalee lampe ba pare am ci ay engrais yoo xam ne illaa mu jëfandikoo ko pour mun a dundal jur gi. et bu boobaa rendement yu mu doon am day yokk illaa mu jaay ko am lu mu ci am parce que sac bu ne mun na ci am juróom benn téeméer donc loolu loo xam ne lu ama am solo la ci jamono ñi nga xam ne dañuy wax énergie renouvelable extra bu ñu ko xalaatee dañuy def ne booy ngir nga def énergie renouvelable il faut nga def photovoltaïque wala nga def éolienne wala nga def lii loo xam ne ku nekk mun na ci am te mun na ko jëfandikoo parce que programme national biogaz bu ñëwee day ne man indi day indi 80 pour cent xaalis bi mu war yeneen 20 pour cent yi dañuy laaj nit ki moom mu génne ko ci suuf su muy indi ci xeer yu muy dem tibbi ci liggéey bu muy liggéeyal boppam ngir ñu mën a tabax biodigesteur donc muy programme bu am solo te moo tax ñu sawar ci te di war ci ànd ak suñu partenaires yi Heifer ànd ci ak ñoom gouverneur préfet ak sous préfet nga xam ne fépp fu lu Sénégal yëkkati tey ci mbirum plan Sénégal émergent pour mu dem ci kanam ñoom buñ ci jàppulee li mu waree du man fàttaliku ma fu ma menacé kenn ku mu munta doon waaye jàddu na bu fekkee ni dañu dénk ngir énergie bi na dem kanam lépp luy faagaagal mbir moomu wala tree ko mu dem ñu taxawu ci dama jàpp ni mbirum jaayu électricité contrat la jaay naa la électricité ak koo mën a doon nag loolu il faut mu leer man dañ ma dama yegg si ministère bés bu ma njëkkee yegg si ñaareelu bés bi ñu tagg ñu courant ndax <laughs> fay ñu woon six étages ñoo a da ngay wax ak pour ñu rétablir ko parce que ma ne du ma wax ak ñoom ma yéeg six étages après ñu de ñu débrouillé ñoom dem fay